Mohamed Bachir Diop, je suis professeur de géologie et président du comité scientifique qui devait, euh, avoir, qui faire la revue du rapport sur la vulnérabilité dans le secteur extractif. Donc nous avons, vous savez que le rapport est le produit de la commande de faite par l'OFNAC auprès d'un cabinet de consultants qui s'appelle Soper International. Quand le consultant a présenté son rapport à l'OFNAC, Euh, la revue de, de, de, ce rapport a été faite, a été faite par euh, un comité, euh, un comité élargi qui, est, qui, est, qui, qui, passe en revue, donc, qui est composé de tous les experts qui travaillent dans le secteur extractif, aussi bien les juristes, les environnementalistes, les géologues, etc. Ensuite, les spécialistes de la corruption. Maintenant, ce comité scientifique, pour euh, euh, améliorer le rapport, a, mis, à a, a érigé sans son sein un groupe scientifique restreint qu'il a élargi d'ailleurs à d'autres experts. Et c'est ce, ce, ce, groupe scientifique restreint qui a travaillé notamment à Sali, qui a eu donc à finaliser le, le rapport qui, vous a, qui, vous a, qui, va vous être présenté tout à l'heure avec. Que dit le rapport Voilà, le, le, rapport passe en revue la vulnérabilité dans le secteur extractif. Qui dit secteur extractif dit le secteur minier, pétrolier et gazier. Dans tous ces secteurs-là, on a passé en revue les faiblesses, aussi bien au niveau juridique, au niveau institutionnel et au niveau de l'octroi des, des, titres et licences euh, dans le secteur des mines, du pétrole et du gaz. Donc, euh, nous avons fait appel à des experts, notamment des... Je, je suis dans le comité moi-même. avec euh, M. Lamine Diouf, qui la, de la, direction des mines et de la géologie. Il y a aussi M. Djibril Kanouté, qui est ancien directeur de Petrosen. Il y a aussi Biram Diouf, qui est ancien directeur de, de la MIFERSO. Et il a Mustapha Fall, qui est de l'ITIE. Donc c'est un comité élargi. Vous savez que le secteur extractif est très large, parce qu'il y a beaucoup d'experts qui interviennent. Donc nous avons fait appel à tous ces experts et même à des experts extérieurs, notamment M. Ousmane Sissé qui est de, de la direction des mythes de la géologie et M. Pape Gorebar, Babakari, etc. Ce comité maintenant a, a, le rapport et a sorti des recommandations. Parce que vous savez que dans, le domaine du, du, du secteur extractif, c'est et quand on est, quand on n'a pas un parcours scientifique, quand on n'a pas fait par exemple le, le, le, travail de mineur dans le, sur le terrain, on ne peut pas voir un peu les faiblesses. Donc, on a fait appel à des experts qui ont passé en revue le rapport qui avait été présenté par... Il sera oh, oh, oh. Voilà, pour vous faire le résumé, peut-être je vous pourrais donner la parole au, au, présentateur du rapport, qui est M. Moussa. dans la, comme on l'a dit, on a passé en revue toute la chaîne. Depuis l'octroi des titres miniers, depuis le, en passant par l'exploitation et en même après l'exploitation. Donc on a vu toutes les vulnérabilités, toutes les, toutes les possibilités de corruption ou de vulnérabilité. Où là, chaque fois qu'il y a des menaces, on a mis des recommandations. Donc chaque fois qu'il y a un constat de vulnérabilité, à côté on a mis une recommandation pour conforter un, un peu le secteur par rapport au rapport au, au, à de façon générale. Mmh. Euh, rapport bi moom. ci gàttal rapport bi euh, moom da euh, moo ko moom moo ko moom moo ko commandé woon pour xool pour pour xeex guerre ci affaire pétrole bi gaz bi ak euh, ak affaire secteur bi mooy or beeg phosphate beeg yooyu. xam ngeen Sénégal dafa découvrir phosphate ay am na ay phosphate yu bees yu mu découvrir ak or bi am na lu ci découvrir pétrole bi gaz bi notamment à Saint-Louis Sangalkam ak Kayar. donc xam nga loolu day ëcc day xëcc guerre parce que boo xamee secteur boobu ay milliards yu bari la moom moo ci dox. te xam nañu secteur bi souvent ñi ñi ciy nekk ñu am doole lañu donc il fallait que donc nag commander benn étude pour xool nan la ñuy def ba ba li ñuy wax malédiction du pétrole mooy li nga xam ni mooy mooy mooy indi xeex parce que am na pays yu pétrolier yu bari bu leen ko déggee am na fa ay yu bari am na guerre am na ay xeex am na même guerre loolu nag pour ñu aaru ci il fallait que ñun ñu jël suñu matukaay matukaay yooyu nag moom mooy kiiwu rapport bi rek si rapport bi ñu ci liggéeyee def nañu ay matukaay yoo xam ne yaakaar nañ bu ñu ko tëralee incha Sénégal dina am jàmm dinañ exploiter pétrole bi gaz bi xam ngeen ni gaz bi 2023 la ci année prochaine la donc yaakaar nañ bu ñu ko taxawalee daal recommandation yi ñu ci def xam naa di ko jot bu ko taxawalee incha allah te président président de la république sax xam ngeen loolu moom lu ko soxal parce que moom géologue la déjà donc xam na liñ xam na xam na loolu boobu bu ko ko joxee ba ñu tëral ko incha allah yàlla mën nañu musal ci recommandation yi affaire recommandation yi recommandation yi waaw recommandation yi moom laa leen di doon wax rek dañu xool dañu saytu secteur bi ci affaire droit ci affaire ni ñuy joxe licence yi par exemple boo bëggee seet pétrole wala nga seet gaz wala nga seet or xool boo bëggee exploiter nooy def boo paree même nan ngay joxe nan ngay delloo askan wi yëfam ñu xool foofu yëpp lan ban possibilité la ñu am par exemple am ah, nañuy wax léegi wax ay conflit d'intérêt par exemple yow nga nekk ci secteur mine bi mën nga doo mën a par exemple bokk ci ñi ñu xam dañuy exploité wala nga xam ni par exemple nit ki xam dafay nëbbu ci beneen tur wala ku benn saay-saay boo xam dafay nekk ñëw nëbbu ci ay tur wala ci ay institution bëgg a bëgg a def fi ay lu dul noonu loolu yëpp réglé nañ ko moo tax bu ñu yàlla dimbalee incha allah problème yi ñu fi déggoon ci temps yële passé bu ñu defee recommandation yi ñu tëral incha allah doo fi am